mi ñaar ñu bokk ndey ak baay ñoo ko seq ci tribunal bu ndakaaru ñoom nag ñoo jàkkaarloo juge bi am jafe-jafe ndaxte société bi tudd online international nekk ci Wanexbet ñoom ñoo tuumal kii di Abdoulaye Loum ne lu mu leen waxoon jëfewu ko Abdoulaye Loum dafa tuumal ki nga xamante ni moo di Mohamed Dieng di directeur général bu agence internationale online dañu ko jox cent ko ci ki nga xamante ni moo di frère am di Ibrahima Loum Ibrahima Loum nag bi mu jàkkaarloo juge bi li la wax mu ne maa ngi weddi cent cinquante millions yi nga xamante ni dañ ni ci Mohamed Dieng la jugee man maa jël soixante quinze millions jox ko ki nga xamante ni moo di sama frère di Abdoulaye Loum Abdoulaye Loum nag weddi loolu ba mu set ginnaaw bi mu waxee jegante woon Ibrahima Loum tontu laaj yi nga xamante ni avocat wu Abdoulaye Loum moom moo ko laaj moom mu ne lu muy ñaan rek ci raqama moo di lu muy wër di teg lu ñaaw ci deru ki nga xamante ni moo di Mohamed Dieng Ibrahima Loum nag ci salle bu fees dell ñëpp yéemu ci ki nga xamante ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mu ne du wor du susal ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Loum mi nga xamante ni waa 1xBet ñoo ko waxoon mu defaral leen juróom fukki point de vente ci 600 millions moom ñu ne xaalis bi kenn xamul fu mu jaar procureur bi nag nee na dañ ko war a tëj benn at verdict bi ñu war ko joxe 28 juin bii di ñëw